géej bi nekkee fii ci Parcelles Assainies ci diwaanu Ndakaaru mbooloo mu takku ñoo fi tase woon ngir jële fii lépp luy plastique ci week-end bii mouvement soppi doxalin bari li mu yëngu lool ci càmm alam gi moo sabab lu ni mel lépp rek ngir aar waaxe Sénégal secrétaire général bi di dikkaat ci anam bu jéggi dayoo buñ ci faral di dund ñii di faral di dugg ci ndox mi ngi loon di woowee ay plongeur def nañu benn opération ci yaraax caaro géej ba ci diwaanu mbaaw ba génne nañu fa lu toll ci fanweeri tonn ci ay mbuus li tax jën di manqué ci réew mi bokk na ci exploitation industrielle mbuus yi itam ci la bokk yàquteg géej gi te li koy waral bokk na ci xeetu plastique yi li muy gàllankoor ci komuk ndaw yi nga xamante ne dañoo taamu géej gi ngir mën faa faj seeni soxla bari na lool taalibe yi dañu nettali ana naka la mbir mi taxee ba ndaw ñi di jël mbëkk mi rawatina ñi di nappkat yi. beaucoup vraiment. ndaw yu bëri yi nga xamante ne ci géej gi la ñu yaakaaroon ngir mën a faj seen soxla jamono ji ay jafe-jafe kese la ñuy dund da ngay gis ku jël fukki million yi nekk ay jumtukaay ngir liggéey wante du ci gis boppam moo tax ñuy jël gaal gi ngir ut beneen pexe. quotidien vous êtes obligé de trouver solution. Pape Demba Laye di njiitalug mouvement soppi doxalin di yuuxu wàllu ci kanamu kilifa yi. li muy sàkk moom ma ñu jël ay ndogal yu wér bu ko defee ñu mën a mucc ci bile crise am nañ ci ay waxtaan ak ministère de la pêche ah euh, démb vraiment secretaire général dem na foofu bon recevoir nañ leen ndax lii Sénégal gépp la ñor tey foo tourner fii de plastique rek ngay gis foo tourner plastique mais loolu defarul réew mouvement soppi doxalin ak programme bi mu am ci réew mi yëpp duppee ko zéro déchet plastique dafa boole dooleem ak SONAGED di kuréel gi nekk fii ci Sénégal te yëngu lépp lu jëm ci yorinu ku cet geeg cell geeg ndox mi ba mun a amal bésub set setal gi li ñu bëgg moom mooy fexe ba géej gi dootul am benn plastique